alors ci wàllu député yi la ñuy taxaw ni ba tey alors xam nga ni tey euh, quinze euh, les députés du PUR notamment Massata Samb ak it Mamadou Niang tey la ñu waroon comparaître devant le juge euh, pour leur procès en appel Euh, en cas de confirmation nag de la peine Massata Samb ak it Mamadou Niang pourraient perdre leur mandat de député donc cette affaire là suscité woon également coow lu bëri mu ñeel l'affaire Amy Ndiaye Gniby ci fàttali ba tey ñoom ñooy ñaari député pur yi nga xam ne leen waxoon ni dañoo euh, dóor ki nga xamante ni moom moo di l'honorable député Amy Ndiaye Gniby ba sax ñu fësoon ay xibaar ni dafa ëmboon te it euh, grossesse am dafa mujjee woon nekk à risque cette affaire là buñ ci taxawaatee ëmb ba honorable ñaa ngi laajte ndax it finalement loolee amoon na wala stratégie rek la woon pour mun a teg daan ñi nga xamante ni ñoom ñooy les deux députés du PUR vu que ni depuis lors amuñu ci benn information bu bu tooftal ci ki nga xamante ni moo di honorable député am na Amy waaw Amy Ndiaye Gniby nag moom yaakaar naa ne boo fi ñëwoon yaa 4 jours 5 jours di fekk mu toog sama bureau bi ñaaw loolu nag comme jigéen rek jigéen bu wóorul ni muy ñaawee ñaaw na macha ñu koy ñaanal yàlla omi sedd guyu pour wax na la rek que ne ëmb boobu noonu du scénario du invention du leneen jigéen ñi warul la dëgg yàlla fi mu nekk diis na macha allah léegi nag lañ koy ñaanal yàlla omi sedd guyu yàlla may ko bés bu sedd dëgg yàlla euh, doom ji ñëw ak jàmm ak salaam loolu moom mën naa la ko seddeel bureau bii ba muy jafte fii la jafte muy jafte ñu ko gis muy jafte donc nag teguñ si ay fan di xew ci assemblée bi xew. ñu doo ko ci biir weq ko ci biir wax yàlla ñépp ñaawlu ko le monde entier ñaawlu ko yéen ngeen ñaawlu ko euh, Sénégal yëpp ñaawlu ko euh, CEDEAO ñaawlu ko up bi nga xam ne ci laa bokk muy la parlement mondial bi ñu communiqué ñaawlu ko UEMOA ñaaw ñaawlu ko képp kuy organisation boo xam ne rek africaine nga wala internationale nga ñaawlu nga loolu nga xam ne moo jëf yooyu ñu si Amy Ndiaye ñibbi kon tey jii nag buñ demee ba ñoom ñu def appel ba ñu leen di eh, attewaat yaakaar naa ne eh, nañ bàyyi yoon def liggéeyam. risque nag muy perdre seen mandat. waa xam nga nag eh, loolu y' a pas de y' a pas de cause y' a pas de conséquence sans cause moo toujours je vous renvoie aux causes ndax tey bu ñàkk seen mandat nañu interroger l'histoire lu waral ñu ñàkk seen mandat loolu yëpp yoon moo koy wax yoon. moo xam lu mu lu mu leen di lu muy lu muy wax mais en tout cas ñun bu yoon defee liggéeyam ba pare bu leen yoon confirmer daan yi ñun assemblée nationale li ñuy wax dinañ ko def en se en nous basant sur li nga xam ne moom la ñu règlement intérieur may en cas de condamnation définitive dans ce cas le député en cas de condamnation définitive perd son mandat de député maintenant mais nag yegguñu foofu fi ñu toll mooy lan la yoon di wax comme yàlla a la séparation des pouvoirs. dañuy bàyyi yoon def li muy def ba pare nag et c'est là où l'Assemblée nationale va entre en action alors honorable fi ñu daanalee suñu waxtaan nag moo di benn commentaire bu gàtt boo bu ma bëgg nga nga indi ko ci ci ki nga xamante ni moo di sa ex collègue di Aminata Touré donc nag moom xam nga ni ki samedi euh, jot na am distinction honoraire de de docteur honoris causa foofu ci États-Unis euh, ñoom nag dañoo am reconnaissance ci ci liggéey yi nga xamante ni mu ngi koy def jëm ci wàllu xeex ak yelleef doomu aadama mais également ci soxna yi en tant que soxna donte tey jii bokkut leen parti lu nu mel jàpp nga ni distinction boobu moom mérité na ko waa am xam nga nag jigéen boo jox euh, distinction rek ñu nañ si kontaan euh, tey jii man mi di wax ak yow xaw ma ñaar distinction laa am na amaluma defal jigéen ñi nag amaluma xeex si jigéen ñi aussi muy droit des femmes ak droit humain Ndeye Lucie moom nga moo nekkoon président du COSEF di premier secrétaire élu ci assemblée nationale xeex parité bi indi ko fi assemblée ak ay jigéen tey jii décoration euh, distinction da koy am donc jigéen ñu bëri ñu ngi distingué donc du événement bu rëy pour man. parce que nag kenn ku si nekk si ñun am na fu ñu la distingue distingue di distinguer ci wàllum droits humains Aminata Mbengue Ndiaye tey mérité na distinction boobu te am am na am na yu mu am Aïda Mbodj mérité distinction distinction bi parce que mérité na ko moom it ndax xeex na ci parité bi tey parité bi tey ñu ko xeex tey ndimbalaal nay Louga Cissé ku mel ni Awja Thiam ku mel ni euh, euh, nu ma koy tuddee encore Aïda Mbodj ku mel ni Aminata Mbengue Ndiaye ku mel ni Fatou Kiné Diop bu observatoire sur la parité mun naa fi lim ok Gassama mun naa lim jigéen ñu bëri ñoo xam ne dañoo xeex lu mel ni parité xeex lu mel ni euh, la loi sur la nationalité nationalité mooy jigéen mënutoon a jox nationalité euh, doomam bu bu bu xam ne jëkkër bu jëkkër bu bu d'origine étrangère moo ko jur. sax ci plénière yi passé. ni à son enfant ni à son mari bañ koy voté fii assemblée nationale fekk na boobu premier ministre bi moo nekkoon. fekkoon na ki ñëw ñuy voté loi boobu noonu mooy lancé premier ministre donc bu jigéen Aminata Touré donc pour dire ne am na combat yoo xam ne tamit jigéen ñoo ko porté am nañ te distinction donc distinction bu ko amee moom dañ ci dañ dañ koy rafetlu xëy na am na combat yoo xam ne porté na ko man yëguma ko mais yaakaar naa ne xëy na da ko porté au niveau international mais fii ci Sénégal képp koo xam ne porté nga fi combat jigéen fekkee naa ko wala moo ko fekkee wutit Euh, ndax awma âge bi ñu am ñoom mais interrogé naa l'histoire te ñii mën a limal gisuma ñoo xam ne xeex nañu droit des femmes te ñu mën lañ ci seppi amul xëy nag ñoom amuñ lobby ñii ñi ma sama limal léegi amuñ lobby bi tax ñu wax mën leen distinguer au niveau international amuñ entre genre bi jéem ñoo dem xëy na di di lijjanti bu am distinction mais nag ku mel ne honorable Nelly Cissé yaakaar naa li mu liggéey fii ci jigéen ñi jiite woon ko COSEF Marème Touré Thiam Marème Touré Thiam euh, euh, euh, la femme de feu Iba Der li mu liggéey ci droit des femmes aussi kenn mënu ko mënu ko naatable kon donc nag jigéen boo xam ne rek distingué nañ la rek ci wàllum droit des femmes dañ koy rafetlu di di woo nag wax dëgg yàlla nag combat des femmes bu amee na jigéen ñi gën a taxaw am na solo lool lool lool tey ji Adji Sarr a ngi ni amoon na fi combat boo xam ne. Euh, bu jigéen ñi waxoon porté ñu gis ne wax dëgg yàlla amoon na absence su ñu ñuy wooyee les organisations de la société civile les organisations féminines donc yu mel noonu tamit jigéen ñi nañu jàpp ne xeex ñu am par parloo jigéen nañu jàppale ñëpp bu dee jigéen lañ jàpp ne ay droit yam dañ ko bafoo bafoo ba yoon di wax li nga xam ne mooy euh, euh, moo am D'accord. Alors, que ni euh, vous êtes vice-présidente du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée nationale, coordinatrice Macky 2012, présidente des femmes de Benno Bokk Yakaar et de la mouvance présidentielle, présidente également euh, Union du développement pour le Sénégal. Honorable, ça a été un plaisir euh, vraiment c'est que waxtaan bi la mot de la fin fooy tàggatoo. di la remercier dëgg yàlla yow jàmbaar nga jàmbaar nga ci li nga xam ne moom ngay def macha allah am nga ci détermination am nga ci engagement. ñu lay félicité bu baax ci loolu euh, di rafetlu également sa objectivité parce que euh, muy say question wax dëgg yàlla lépp di nga xam ne tëddee ñaaxaandaay bi nga xam ne moom la ñu xaar ci presse bi yow moom ngay wane kon ñu ngi lay ñaanal di la di la di di félicité ki nga xam ne tey jii moom moom seen site bi seen patron moom tamit ñu koy ñaanal yàlla donc euh, li nga xam ne moom la sumb mu am ci ndam yu gën a mag ndax nag di créer dara recruter ay xale loolu lu am solo la donc may wax askanu Sénégal rek ne bu ñu woo kenn ci fitna nañu jàpp ne Sénégal ñoo ko bokk réew jàmm la lépp lu ñu war a defar nañuy waxtaanee lépp te dialogue bi nga xam ne président Macky Sall woote na ko gën a firnde ne Macky Sall c'est de dialogue c'est un homme de paix c'est un d'ouverture koo xam ne lenn moo ko ñor muy la Sénégal lenn moo ko ñor. muy li nga xam ne mooy l'intérêt général may également félicité bu baax jigéen ñi Benno Bokk Yaakaar yi de la nga xam ne ki leen mooy madame la ministre d'État Ndeye Marième nga xam ne dëgg yàlla ànd jigéen ñi Benno yëpp ànd nawle ñu àndandoo liggéey xàccandoo dóorandoo résolution bi nga xam ne ñoo ko porté tey pour inviter le président Macky Sall mu nekkaat candidat ñu ci au Sénégalais yëpp di wax na président Macky Sall moom tamit ñu ngi ko ci woo wax dëgg yàlla Euh, na na répondre favorablement à cette demande parce que bilan la fi la fi def ay réalisation la fi indi ñu jàpp ne c'est le choix de la continuité ñu jàpp ne c'est l'homme de la situation ñu jàpp ne il incarne l'espoir pour la nation sénégalaise. D'accord. am na solo honorable di la remercier bu baax a baax ci disponibilité bi donc c'était votre émission de la semaine 13 minutes de vérité avec l'honorable député Adji Mbergane Kanouté may remercier également staff technique bi ma àndal Dieye à la caméra montage également Samba ak it euh, la rédaction de Sénégal 7 ak it ñëpp ñi nga xam tout le temps ñu ngi jàpp ci liggéeyam notamment la régie di leen jox dig daje incha allah ci yeneen euh, émission d'ici là euh, portez-vous bien jërë